honorable député Aymérou Gningue yow yaay njiital groupe parlementaire Benno Bokk Yaakaar ñu ngi lay nuyu am nañu mbégte dalal ci matinalu Rewmi FM. waaw maa ngi lay fay bu baax di am man tam mbégte jamono bu nekk di ñëw ci seen rajo surtout yow Fatou euh, di échanger ak yow ci réew mi. jërëjëf alors président bureau assemblée nationale dafa woote réunion barki dem ba fukki fan ak juróom weeru septembre euh, jëm notamment ci mbënn mi di inondation yi euh, ngir mën a saytuwaat li nga xam ne tëraloon nañ ko fii comme programme ngir xeex mbënd mi mais surtout xaalis bi nga xam ne. jot nañ ko ci def. alors lan nga ñu mën a tënkal ci li génne ci boobu euh, ndaje. waaw dafa nekkoon ndaje bu am solo boo xam ni président assemblée nationale daf ko woote xam nga ku ne xam nga ne assemblée nationale ci bëri la nekk moom mooy vacances parlementaires waaye nag dafa am loo xam ne su dalee ci réew mi ñu def déclaration bu toll ni bi ñu def euh, mititlu ko. mais itam jaale ñi nga xamee ñoo ci ñàkk seen bakkan mais mitit lu tam ñi nga xamee ñoo nekk ci jafe-jafe yi assemblée nationale tam war a am taxawaay te taxawaay bi mooy bi président Moustapha Niass waxee ni nañu daje mooy ñu seet waxtaan ba xam naka lañ ciy dugale suñu loxo ni ñu jàpp ni nag ni nañ ci war a dugale suñu loxo mooy euh, suñu règlement intérieur dafa wax ni bu yenn xew-xew amee assemblée nationale war na def lu ñuy tuddee mission d'information mooy dem seet bu baax lan moo xew waaye booy seet mbir lan moo xew da ngay mën a indi tam saafara boo xamee xew-xew ba lan la ba pare mu mel ni Sénégal 2012 bi président Macky soog a ñëw fekk ñu nekk ci ay inondation yu métti dafa defoon lu ñuy tuddee benn programme boo xamee ne dafa ni fukki at yi ñu jëm mooy 2012 ba 2022 dama bëgg jël alal def ko ci pour ñu seet naka la ñuy wàññee mbënd bi am na ci loo xamee ci wàllu ay tuyo la am na ci loo xamee ci wàllu ay dëkkuwaay la am na ci loo xamee ci wàllu seet foo xamee ni nii ndox dafa daan nga seet nooy defee ay nu ñu de ay station de pompage pour ndox moomu ñu mën ko di ko yëkkati di ko yóbbu feneen mais xam ngeen ni loolu bu fekkee def nañ ko xayma woon ko ci juróomi ñaari téeméeri milliards ak juróom fukk ñun war nañu xam ci juróom ñaari téeméeri ak juróom fukk ñaata la ci gouvernement bi utiliser ñu xam fan la ko def xam itam yan structure ñoo ko doon def parce que structure yi intervenir ci wàll woowu dafa bari xam nga ne am na ADM doon na doon na intervenir ku mel ni AGETIP doon na intervenir ku mel ni ONAS doon na intervenir fondation droit à la ville doon na intervenir yooyu yëpp ay kuréel la mais kon assemblée nationale mën na taxawal euh, mission boo xamee ni non seulement acteurs yi di nga dem waxtaan ak ñoom mais ñi nga xam itam ñooy jël décision politique yi mooy ministre yi di nga waxtaan ak ñoom ñu ne bu ñu waxtaanee ba pare dinañu xam ci liggéey boobu lan moo lan lañ ci def lan moo ci des dinañu dem tam seet fi nga xamee ne defar nañ ko ba léegi ñëpp xam nañ ni taawatul parce que bu njëkk ba buy taw kenn du mën a jaar ci route nationale bi bu njëkk ba buy taw boo demee fii nga xamee ni moom mooy yoonu maison du parti socialiste kenn daaw fa mën a jaar boo daan dem Philippe Senghor kenn euh, Maguilène Senghor kenn du fa mën a jaar yooyu yëpp ñu gis li ñu def tamu baax mais ñu gis tam li nga xamee moo des mais li ci ëpp solo mooy fu nekk ñu xam ñaata alal lañ fa dugal ba ñu wax sénégalais yi ci juróom-ñaari téeméer euh, ak juróom fukki milliards yi ñu doon wax nangam lañ ci def xam nga fi mu nekk nii man ma nekk député mën naa la wax ni li ñu jot a def ci liggéey boobu matul deux cent milliards hmm. léegi mën nga mën naa la wax tam lu tax ma wax ko hmm. parce que xam nga at bu nekk saa bu ñu voté budget dafa am lu ñuy tuddee loi de règlement buy wane ni wax dëgg yàlla li ñu indiloon ci budget bi ñu paree nii lañ ko doxalee ñun ñu voté waat ko parce que budget boo ko voté ba pare bu ñu ko tënkee ba doxal ko ba pare da ngay ñëw tam joxe cutis mooy nga voté gis nga loi de règlement yi nga xam ne cour des mooy ñu defal rapport bi ñun bu ñu ko jëlee xool ko ñun député yi bu ñu xamee dëgg-dëgg suñu liggéey jël ko xool ko rubrique bu nekk xam nañ ñu ñaata lañ ci dépensé loolu moo tax ma sañ la wax nii la man xam naa ni dépensé guñu lu mat euh, deux cent milliards ci liggéey boobu waaye nag bu boobaa ñun ñu defee. li nga xamee moom la ñu war a def war nañu wax ni kat euh, mbir mi des na ñaari at parce que mi ngi dem ba deux mille vingt deux mais est ce que ñaari at doy na pour ñu def liggéey bi est ce que waruñu jël plan boobu au lieu ñu yamale ko deux mille deux mille vingt deux ñu yóbbu ko ba deux mille trente cinq est ce que waruñu jël xaalis bu gën a takku def ko ci mais est ce que waruñu fexe tam ba xaalis bi ñuy wax. ñu jéem ko mobiliser lu mu gën a gaawee ba li nga xam ni tudd nañ ko ñu jël ko dugal ko foofu ba pare parce que Sénégal dafa bari priorité xam nga njàng bi priorité la leneen priorité la tey lii dal ci wàllu santé kenn foogu ko woon priorité la est-ce que loolu di nga ko am ba pare di jël xaalis bi di ko dugal foofu loolu yépp ay waxtaan la yoo xam ni ñun war nañ ko waxtaanee moo tax suñu liggéey mooy bu ñu waxtaaneek ñi ñu war a waxtaanal yépp ba xayma li ñu jot a def ak li nga xam ne des na te defaguñ ko mooy ñu am nag lu ñu tënk wax gouvernement bi ni ñun de suñu gis-gis moo doon bu ngeen di liggéey ci fukki at yi jëm lii ngeen war a def lii ngeen war a def lii ngeen war a def loolu nag ñun ñu koy def mission boobu yàlla def ñu dimbale ñun ñëpp ñu juboo ci assemblée nationale majorité opposition ak ñi nga xam ne nii dañu nekk non inscrit yi nga xam ñoom bokkuñu ci majorité bokkuñu ci opposition ñun ñëpp dañu war a ànd ñu nekk fukki député ak juróom waxtaan parce que bu leen fàtte nii ci Covid la ñu nekk. Covid bi tam dafa am loo xam ne daf ñu koy imposer am na loo xam ne jegeyaaloo yoo xam ne mënuñu ko su ko defee fukki député ak juróom saa bu ñu invité ministre mu ànd ak juróomi juróomi euh, collaborateur am ñoo xam ne ñoom lay liggéeyal dinañu mën a nekk ci benn salle waxtaan. ba pare lu député yi war a xam ñu xam ko dañu jàpp ni nag lu député xam rek xamal ni peuple bi xam na parce que lu député xam dina ko génnee ci biti yàggee ko askan waaye euh, opposition parlementaire bi notamment parti démocratique sénégalais ñoom euh, dañu jàpp ne yéen bëggu leen dëgg-dëgg xool li nguur gi jot a def ndax ñoom dañu bëggoon ñu def session extraordinaire boo xam ne dañuy convoqué ministres yi ñëw laaj leen ñu tontu euh, est-ce que tamit xawu leen wute tuuti ci doxalin bi ah kay parce que ñoom en réaliser sax. Euh, parti démocratique sénégalais waxuñu woon ñu def commission d'enquête ñoom dañu wax ni rek dañu bëggoon ñu def euh, session extraordinaire mooy ñu ubbi session xam nga session extraordinaire tam dafa am nuñ ko tënkee ci biir suñu règlement intérieur ñoom dañu wax sax ni 2012 bi loolu xewee 2011 ñoom dañu defoon session extraordinaire différence bi rek mooy ñoom bi ñu def session extraordinaire juillet la woon. ñun nag léegi ñoo ngi septembre jëm octobre te ñun xam nañu ne session bi mi ngi ubbi le quinze octobre lu mu gën a lu mu yéex yéex yéex le 15 octobre ñu ne loolu du ko jar def session extraordinaire jaru ko dañuy def mission bi su ñu defee mission bi mission bi dina waxtaan ak ku mu war a waxtaanal muy ministre muy directeur muy société bu ñu waxtaanee ba pare bu ñu ubbee session bi dinañu def benn plénière boo xamee ni ministre bu ci war a tontu rek dinañ la woo. dina fekk déjà député am sax ay jumtukaay parce que mission bi dina leen wax lii ak lii ak lii ak lii la ñu def lii ak lii la ñu recommandé su ko defee plenière boobu bis bu ñu koy def ministre bu ñu ci bëgg a woo ak directeur général bu ñu ci bëgg woo dinañ la woo nga ñëw wuy kon loolu amul benn juwet la léegi nag dama bëggoon tam leeral gis nga euh, li ñuy tuddee commission d'enquête parlementaire saa boo ko gisee rek tuuma dafa am tuuma nag su amee dañu naan ah assemblée na def benn mission euh, d' enquête parlementaire ñu xool mbir mi fan la nekk. mais ay tuuma jiboon na jëm si xaalis bi ñu ne dañ ko luubal ak dépensé wu ñu léeg waaw mais xam nga mi ngi dépendre rek kii def tuuma xam nga Sénégal bu fekkoon ni ba saa boo déggee tuuma rek yow sax sa biir kër ak man sama biir kër kon ñun dootuñu liggéey. parce que nit ñi ñoom dañuy xëy rek di wax am na ñoo xam ne dañuy xëy génn ko rek wax lu leen neex. xam nga bis bu ne nga dégg ku ne am na 750 milliards lañ ñu wax fan la dugg te wax naa la léegi ni la loolu amul te man xam naa ne amul parce que man dama yor ay kayit yu wér ni amul. opposition bi tamit yor nañ kayit yooyu opposition parlementaire. mais bien sûr. Ah, lu taxoon PDS di exiger session extraordinaire. ci sa xalaat waaw non moom dafa ne rek daf leen di déglu. Ah, waaw mais en réalité ñoom ñi mewuñu wax ne si def nañu 750 milliards parce que ñoom ñi ngi loi de règlement yi. loi de règlement moom ay kayit la yoo xam ne yu wér la. yoo xamee ñoom bu ñu demee xool ko c'est-à-dire ne nag nit dina tayal ba mu am kayit boo xamee ni sax nag dina ko am ba prête du ko xool. am na jot ne loolu jàpp waa PDS. waaw non am na keneen sax parce que du ma tudd waa PDS. Hmm. am na gis naa ñoo xam ne dem nañu foofu di def show di photo nit ñi di wax ni dinañu seet te fekk ne ñi nga këyit yoo xamee ni buñ ko xoolee mais xam nga booy politique te doo def euh, technique doo def euh, doo jéem a leeral da ngay wax rek loo xamee ni dangay ànd ak nit ñi di wax rek parce que fekk na. yow lii sa liggéey dëgg dëgg dëgg soo ko defoon wala boo jëfandikoo woon kayit yi nga am ak jumtukaay yi nga am am na wax boo xam ne doo ko ñemee sax waaye nag nangu nañ ko parce que politique itam dafa am côté xaxar kooku xaxar boobu nag il faut nga nangu ko. waaye président nag ñëpp xam nañ ne chaque jour nga dégg ko sax xam naa ne assemblée bi askan wi dafa mel ni euh, doylootuñ leen ñu ngi leen di tuumaal tout le temps ne da ak nguur gi lay seen liggéey peut-être bu njëkk wala benn ci liggéey bi gën am solo mooy contrôler li gouvernement bi di def. Mm. nekkoo leen ci da ngeen a mm. far ak ñoom lu ñu def ngeen nëpp nëppal. Mm. Euh, loo leen di tontu ci tuuma yooyu. non xam nga tuuma nag moom euh, comme lii sama benn sëriñ di wax. Euh, dafa wax ne nattu alalu jullit la tuuma alalu gor la xam nga gor rek la ñuy tuumal mu koy metti waaw xam nga am na ñoo xamee seen wax yi dañuy wax rek te li ñuy wax wax dëgg yàlla xamuñu ko parce que rôle lu député d'abord mooy dafay représenter askanam ñaareel bi mooy amul benn loi bu ñu fi mën a voté te voté wu ko ñetteel bi mooy dafay contrôler gouvernement bi ñenteel bi président Macky Sall moo ko dugal mooy dafa bëgg ñuy def évaluation évaluation politique publique évaluation moo ëpp contrôle parce que évaluation mooy ba la ñuy tëral programme bi sax am nga ci baat bu ñu ko tëralee ba pare tam am nga ci baat loolu moo ko dugal ci référendum loolu tam ñu ngi koy liggéey léegi nag li nit ñi bëgg mooy comme man ay méru ñi nga ma ànd ak président Macky ba pare wëlbatiku di xeex président loolu duma ko def xam nga lu tax du ma ko def mm. mooy président Macky bi def programme man nekk def ma ci liste député ma ànd ak moom bu fekkee ne dama dem ba gis ni que am na loo xame ni nii mi ngi koy bëgg a def te man d'accorduma ci waaye dinaa dem wax ak moom moom may na ma loolu député ma dem wax ma ni ko man loi bi d'accorduma ci bu ñu ko defoon nii defoon ko nii moo may gënal wala mu indi ko assemblée ma waxtaan ak député yi ba ñu juboo ñu ne nañu def amande amendement bii lii nañ ko soppi def lii waaye nag ñoom ñi nga xamee ñooy gouverner tey mais man dama ànd ak ñoom te dama koy assumer mooy man li ma fi nekkee ak suma groupe mooy jàppale gouvernement bi ba ñoom ni ñu xalaatee ni bu ñu fa jaaree Sénégal dox ma jaarale leen foofu kon nag man du ma gor tànk xam nga ñiy gor seen tànk mooy ñan mooy ñi nga xam ne dañu demoon wuti majorité amuñu ko ñooñu nag dañuy politique parce que fi ñu toog ñun tey foofu la ñu bëgg a toog loolu moo tax ñoom il faut ñu wax wax bu ñagas mais man mi toog ba pare gëm Sénégal mais gëm ni itam li ma yaakaar ci Sénégal gouvernement bii moom ko mën a indil ak président Macky Sall wax dëgg yàlla nag mën na maa waxtaan ak ñoom ci biir mooy bu ñu wéetee ñu waxante dëgg waaye nag bu ñu raxee ñu waxante lu rafet waaw. man da ngeen di doxalee waaye yéen a ngi jiital njariñu askan wi. njariñu askan bi rek lañu jiital parce que man li tax ma ma dugg ci politique mooy fexe ba askan wi li nga xamee ni moom moo ay coonom ak li nga xam yi moom laa jàpp bu ñu fa jaaree seen nekkin gën a baax gën a neex ma nekk ci loolu xam nga dama am projet président am projet wax ni fii ba 2035 fii laa bëgg a yóbbu Sénégal loolu moo ma convaincre ma ànd ak moom ki ma àndal nag wax dëgg yàlla dinaa ko jàppale ba politique bi mu bëgg a def mu mën a yàgg ci askan ñu wax jeexal ak euh, statut chef de l'opposition coow laa ngi ne kur euh, ñi nga xam ne ñoo ne ci dialogue bi dafa mel ni déggoowuñ ci ba delloo nañu yëf yi ci président de la république yow ci sa gis-gis ak ni yëf yi doxee tey kan ko war a doon boobu chef de l'opposition li may jëkk a def mooy d'abord rafetlu waxtaan yi am Sénégal te loolu su ma ko waxee képp ku dëkkul Sénégal boo xoolee ci li ñu wër li nga xamee Sénégal am nañu lu jafe mooy ñu am ay responsable politique yoo xamee ni saa boo xamee ni nii laaj na réew mi toog waxtaan ñoom ñëpp ñu nangu ñu toog waxtaan wane nañ ko bu wér ci xeexu Covid bi wane nañ ko ci dialogue national bi parce que président mi gagné su bëggoon danaan rek damay gouverner waaye nag woote waxtaan jiitu sax li nga xamee mooy xew ci àdduna loolu nag yàlla mayu ko ñëpp mais may na ko président Macky Sall kon ma rafetlu mooy président Macky ci boppam moom moo proposé woon ci référendum mars 2016 ñi dañu war a jox statut chef de l'opposition Sénégal nag saa boo xamee yooyu am na rek coow day jóg di nga gis ku ne waaw mais bu ñuy jël euh, chef de l'opposition dañu war a set parti bi ëpp ay député ci opposition bi ñu tànn foofu chef de l'opposition am ko ne déedéet comme régime présidentiel lañu ki ñëw ci élection présidentielle jël deuxième kay kooku lañu moo war a nekk mais ñun dañu wax ni nañu waxtaan ak ñoom wax nga léegi juboo amul waaye juboo amul rek du tax ñu tëj bunt bi waxtaan bi mi ngi continuer nañu bàyyi waxtaan parce que man gëm naa ni Sénégal dinañu dem ba juboo ci ni lii nañ ko def surtout que li ñuy def du dara dul yokk démocratie mooy fexe ba même boo yore réew mi bala ngay jël benn décision nga woo ki nga xam ne mooy chef de l'opposition mm. waxtaan ceeg moom diisoo ceeg moom moom itam mu jox la xalaatam du tee nag yow yaay décider parce que yow la ñu fal. mais au moins nga yóbbaale xalaatam. ba moom mu xam ni li nga ko doon xelal moom jox nga ko ko moom mooy seet nag après naka la koy dugal ci ndabam wala du ko ci dugal. loolu yëpp nag je pense que nañu bàyyi il faut donner temps au temps moom la tubaab di wax nañu may yàgg bàyyiwul dara. ci kanam tuuti defe naa ne dañuy juboo ci loolu même bu fekkoon ni président sax daf ci war a wax yaakaar naa ni la ñuy wax. nitu Sénégal yëpp war nañ ci mën a juboo ñu xam ni itam benn poste rek la buñ ko ku ñu ko jox da koy dañ la koy jox waaye réew mi tax ñu jox la ko waaye sa bopp taxul ñu jox la. jërëjëf honorable Aymérou Gningue président groupe parlementaire Benno Bokk Yaakaar amoon nañu mbégte dalal la ci matinalu tey. man nag maa gën a bég parce que man dama bég d'abord di partage ak yow parce que ñuy waxtaan wax dëgg yàlla waxtaan bu am solo lay doon. kon maa ngi sant ñëpp di sant auditeurs yëpp.